keroot eh, tàggoon na ma pugre woon na si wàllam mm, nattu yi ni moom nattu yi faalewut ko faalewut ko ba pare mu jàll si rëbbu waaye si rëbbu ban fas lay war kooku jàll na sax waaye nag après mu jàll si ban àll lay rëbbee ak si ban jamono lay rëbb di progré wu si wàllam rëbb <coughs> ne wa baata alayhi wa baata alayhi sarjuhu wa lijaamuhu wa baata bi ayni qaa'iman gayra mursali فعنا لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء في الملاء المذيل فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد muimmin fi lashirati muxwali ma nga wax muimmin wala nga ne muammin mixwali ma nga wax mixwali mixwili mixwali nee na wabaata fanaan na alayhi si kaw fas bi sarjuhu tegam ba walijaamuhu ak laxabam ga wala nga xadam ko nga ne wa baata fanaan na sarjuhu tegam ba wa lijaamuhu ak laxaabam ba alayhi kaw fas ba nee na fas ba su jógee su ko préparé ba war rëbbi suba guddi gu mu rëbbi noonu si suba ga guddi googu noonu fas bi si kawam teg fas bi si kaw teg si kaw fas bi lay fanaan waaye laxabu fas bi tamit si kaw fas bi lay fanaan wa baata bi ay nii sama bët xoo iman di aji taxaw xayra mursali nekk luñ boyal nee na fas bi guddi suba fajar gu mu war a rëbbi gu noonu si guddi ga fas bi du nalaw du dem fen sama kanam lay fanaan teg ga nekk si kawam laxab ga nekk sa gémmiñ ja mu taxaw noonu man tamit ma koy xool ba fajar nga xam ne fajar damay ñëw rek war dem nga su ko bàyyeen ba fajar doog kaa sang doog laxab doog kaa tegal doog a dem dafay yéex waaye lépp su ko defee si guddi gi après toog nag di xaar fajar jot fas bi nekk foofu noonu bàyyil ko mu dem fajar dafay jot rek mu war fas bi daal dem mais li bëgg waxtaan moom fas bu fas bu baax la parce que mën na taxawoo euh, guddi gi yëpp laxab di nekk si kawam ak tegga moom tamit mu taxaw fanaanoo xoole ba fajar jot mu dem dañoo mën tuug rek léegi nag nee su ma waree fas bi nag fajar su jotee ba ma war fas bi fa anna mu daal di gaar faa gi faaw sabab yi la maanaam faa gi lum tënk si maanaam moo bari maanaam mooy euh, kii nii safla kon faa gi faaw lil fasiha la lil fasiha dafa mu nëbbu maana bari mooy maanaam mooy ba ma ba fajar jotee ba ma war fas ba ba dàq ko bay dem di dem di dem ba sa àll ba ba demee nag ba sa ba nag fa anna fa mu daal di gaar lanaa ñeel ñu sirbun gàttak euh, gàttak mm, euh, nagu la wala nga ne sirbun gàttak kibal dégg nga gàttak kibal sirbun mooy firi mbooloo rek moo xam mbooloom gàtt la ah, wala mbooloom euh, kéwél wala yeneen daat sirabu àll yi sirbun loolay firi Eh, mu ne fa an mu daal di gaar lanaa ñeel ñu sirbun gàddak ndagu njaaxal wala sirbun gàddak kéwél ka an na ni aajahu dafa menn eh, sëlëmba maanaam dawaarin xeeju dawaar lañ filmulaa in si mël fa al ba bañ biccal nee man jamee ba si àll ba ñu gis ay eh, kii yu bari ñu gis ay njaaxal yu bari maanaam ñu gis ay nagu njaaxal yu bari wala nga ñu gis ay kéwél yu bari mais kéwél yi seen seen maanaam kéwél yu jigéen ñi wala nagu xale yu jigéen ñi seen karaw yaa ngi gudd ba yoore ba mel na jànq yooyu noonu nga xam ne dañ leen solo yére yu am mër fa ñuy wër dowaar jànq yooyu noonu seen yére yi ni ñuy mel di yore nee na eh, njaaxale yooyu noonu noonu lañ mel dowaar xoolee si charxa bi nee e, kii la hmm. moom ab xërëm la dawaar ab xërëm la si jamono way réer maanaam balaa lislaam léegi nag dawaar googu noonu jigéen ñi dañ la kaan wër waaye suñ laan wër ma ñi suñ laan wër dawaar maanaam xërëm googu dañ laan sol ay yére yi nga xam ne dafa am ay lacc-lacc maanaam ay mbicc ay ay cat nee na jigéen ñi suñ solee seen yére yooyu noonu seen seen mëfa yu am cat yi di seen mal fii nu ñu yoree bañ demee bañ ba sa àll ba man ak fas bi bañ demee ba sa àll ba ah euh, gis nañ ay euh, gis nañ gédd nagu njaaxal wala gis nañ gédd ak euh, kéwél yi nga xam ne yu jigéen ñi seen kawar yi noonu la yoree moo xam ne fa an na mu daal di gaar la naa ñeel ñu sirbun gàdd ak nagu njaaxal maanaam mbooloo wala sirbun gàdd ak kéwél ka anna ni aajahu dafa mel ni wal euh, kii ka dafa mel ni seen waliya maanaam seen yu jigéen ña adaara dawaarin ay xeeji dawar lañ euh, fil mulaa'i fil mulaa'i si mël fa almusayili ba dabañ defal mbicc xeej euh, mooy jigéen gi nga xam ne jànq la kenn joteegut ak moom fa adbarna mu daal di fa adbarna ñu daal di dëddu kal jazi comme caq dégg nga al mufassali ba da bañ teqale baynahu digganteem bi jiidim jiidin bi jiidi si way tedd baytax muxwali kay aji tedd nijaay fil ashirati si géer ga nee na ndagu njaaxal yooyu noonu nga xam na ñu leen gis àll ba suñ tourné ba wala ginnaaw seen tupp topp yi maanaam seen tupp tupp yi nekk seen yaram bi dafa rafet ba comme caq bi nga xam ne dañ kaa jël nose ko ba mu baax def si ay wurus duru nga jël ko takkal ko xale bi nga xam ne dafa am bàyyi tax yu tedd ak nijaay yu tedd caq boobu ni muy rafetee noonu lay ndago xal yi ndago njaaxal di rafetee soo lañ gisee bañ wala ginnaaw ñi dem ñoom dafa bokk seen aada suñ amaan maanaam soo amaan bàyyi tëx bu baax wala ay nijaay yu baax yow jigéen gi maanaam dañ laan ay serite di lay jëndal ay caq dégg nga nee jigéen boobu noonu nag soo jëlee caq yi maanaam caq yu ko bàyyi taxam jëndal ak nijaay euh, euh, kii ni nijaayam caq yu rafet yooyu soo ko jëlee teg ko si doxam gi caq boobu ni mu rafetee ndagu njaale tupp tupp yu nekk si yaram bi noonu la rafetee moo di dëdd ñoom ndagu njaale kal jasin comme caq hmm? comme caq al mufassali ba da bañ diggale maanaam ba da bañ teqale bay nawu digganteem nga xam ne diggante bi dañ kaa teqal def si ay wurus bi jiidin muimmin si aji tedd baytax fil ashirati si giir ga waaye muxwali kada aji tedd ni jaay fil ashirati sa giir ga léegi nag moom ba mu sa àll ba ba war fas ba lii gis ne ko loo gis mi ne gis naa gédd ak wala gédd ak ndagu njaaxal la yi nga xam ne seen karo yi dafa gudd waaye seen tump tupp dafa weex dafa dafa rafet nga ne ko noo ko def mi ne fa alxaqanaa dégg nga wala nga ne fa alxaqnaa ñu dab bil haadiyaati si way jiitu ya wa duunahu te yées na ko jawaaxiruha way mujj ya maanaam way des ginnaaw ya fii sorratin si ak yuuxu lam tazayyali boo xam ne teqlu ko wuñ maanaam teqlu ko wut wala nga ne lam tazayyali wala nga ne fii sorratin si ab mbooloo boo xam ne lam tazayyali teqale ko woon a mën na firi aljamaa mën na firi assoyxatu wa dajjatu mën na firi aljamaa di firi mbooloo wala nga ne assoyxatu wa dajjatu di firi yuuxu dégg nga wala xàccu nee na bañ gisee man fas bi bañ gisee kéwél yooyu noonu si laa dàq fas bi daal di dem nee na waxuma la sax kéwél yu nekk si ginnaaw wala ndagu njaaxal yu nekk si ginnaaw mais ndagu njaaxal yu nekk sa kanam sax jot nañ leen waxuma laa si ginnaaw te ba ma leen jot fas bi dégg nga benn yuuxu laa ko yuuxu rek aca rek fas bi daal di ñàlli moom ba mu nag dem na ba jot yi si kanam nag waxuma laa sax yu si ginnaaw wala nga ne looloo nag soo jàppee fi siratin si yuuxu lay firi waaye na bis bu nekk da ngaa jàpp fi siratin si mbooloo lay firi mooy euh, fi siratin si mbooloo waxoon ne lam ta zayyali taqali ko wut mooy fas bi ba ma ko dàqee daw na ba jot yu si kanam ak yu si ginnaaw te fekk ñoom ñoom dagu jaxale yi benn taxale ko wut ak sa morom maanaam mbooloo muñ nekkoon xam nga soo leen soo leen dàqee ñu tiit di daw balaa nga leen a jot mën nañoo taxale ko yi jaar fi bi jaar fii waaye ba ma leen ba ma dàqee fas bi balaa ñuy tasaaroo sax fas bi jot na leen mu ne fa alxaqna fa alxaqna ñu daal di jot bil haadiyaati si way jiitiña wa duunahu yées na way jiitiña jawaaxiruha dégg nga ay way way des ginnaaw fi sarratin si yuuxu lam ta zayeli boo xam ne taqali ko maanaam benn yuuxu rek wala nga ne fi sarratin si euh, mbooloo mi nga xam ne lam ta zayeli taqali ko soo jàppee ne mbooloo lay lay firi wax naa nag maanaa bi dégg nga mu mu daal di méngale wala nga ne faada mu ñaar ñaar ida an ak méngale wala nga ne ida an ak ñaar faada dégg nga faa gi mën na nekk faa fasixa comme niñ ko waxee woon waaye aada gi mën na nekk fi'lu maadi idaan maf'ul mutlaq dégg nga aada idaan fa aada mu daal di méngale idaan ak méngale wala nga ne fa aada mu daal di mu daal di ñaar ñaar idaan ak ñaar ñaar aada mooy mu jël maanaam mu jël ñaar rek bayna sawrin si diggante yëkk wa naajatin ak wëll sawri gi mooy nag bu góor naaja mooy bu jigéen diraakan di aji dab walam yandax te sebut bi maa in si ndox fa yuxsali bañ koy raxas nee na ba ma dàqee fas bi nag fas bi daal di njàpp nee na fas bi nag di fàdd par ñaar ñaar ñi daanoo dana fàdd ñaar ñaari nag benn bu góor ak benn bu jigéen nee na noonu la def rek ba rey yëpp ba jot yëpp fàdd leen ñu daanu ba rey leen te fekk na boobu ñàqagut bañ koy raxas sax maanaam ñàqagut nga xam ne ñaq ñaq bi nga xam ne su delluwaatee kër ga fas bi dañ koy sang lu bëgg wax daal maanaam fàdd na ñum ñëpp bañ daanu si digg bu gàtt nga xam ne sax ñaqut fa wa mi ne fa aada daal di ñaar ñaar wala mu daal di méngale adaan ak méngale aada gi mooy mu ray par ñaar ñaar na sawrin si diggante yëkk wa naajatin ak wëll diraakan di way dab eh, ñum ñëpp wala mu walam yandax te sebut bi maa in si ndox fa yuxsali dañ koy sang nee na daal jot na nag yi nag yi rey leen par ñaar ñaar di leen fàdd dégg nga ci diggante bu gàtt nga xam ne sax ñaqut bañ koy raxas nga ne ko mu mujj na loo def mi ne ba ma waree fas ba fas ba fàdd ba dàqee leen ba fàdd leen bañ daanu ma jël leen léegi dem naa si kër ga nag wa dhalla mu daal di yendu tuhaatul laxmi way togg yàpp ya tuhaat jamcu taahin suñ suñ ne at taahi mooy way aji togg ji masalan ñi nga ñi jaay si restaurant yi dañ leen wax ne tuhaat tuhaatul mataaim mooy toggkatu restaurant yi dégg nga ñu si sharax bi mi ngi naan tuhaat yaani attabaaxuuna mooy ñooy togg jamaa attaahi wa dalla mu daal di yendu tuhaatu laxmi way togg yàpp ya min bayni mundijin si diggante aji ñoral safifa shiwa in sellitu yàpp maanaam wala nga ne euh, safifa shiwa in sellitu mis wi maanaam de dogati mis wi aw wala buñ cinal maanaam yàpp bañ togg si cin dégg nga mu ajjali bada bañ gaaw ak gaaw ak yakkam ma na ba ma indee nag njaaxal yi nag ba si kër gi toggkat yi nag daal di ko jël ñii di togg maanaam ñii di ko michu maanaam ñu xay yàpp yi ñii di ma maanaam di wàjji ñii di togg si cin nga mu ajjali mooy togg si cin maa xam nga togg si cin bi moo gën a gaaw ñoom lu tax ñaa mu ajjal maanaam ñoom ñoom seen yàpp dañ ko daan togg mu ñor lool parce que dañ naan yàpp góor wartu ñor dafa war a xaw a dëgër ndax góor ñoom seen jamono bokk na si ñu doon gën a progré mooy dëgër këk nga gis xale bu am 18 ans hmm. Mohamed Xare ma jox misaal Usaama ibn Zayd dégg nga moom mu ne wa dalla yendu na tuhaatul laxmi toggkatu yàpp yi min bayni mundajin si diggante aji ñoral safifa shiwaain selluti wàjji wala selluti miche aw qadirin wala yàpp buñ cinal mu ajjali ba demañ gaaw ak yekkam wa naa ñu daldi gontu wa raaxa mu daldi gontu ak tirfu dégg nga fas bu gaaw ba yan fudu di fëgg rësahu boppam ba mata ma taraqasa su xoolee al aynu bët bi fii si moom tasafala tasafali eh, suufe na maanaam suufel na nee na bañ demee rëbb nag bay ñibbisi fekk ngoon jot na nena na ba ngoon jotee nag dégg nga ñu daal di tourné di dem maanaam fas bi daal di tourné man ñi dellu kër ga nee na fas bi nag si daw nga gis mi sëggal ak bopp bi di ko yëkkati maanaam di sëggal bopp bi di ko yëkkati nga xam ne saa su fas bi rafet na rafet goo xam ne saa su ko bët xoolee si kaw rek dana wàcc suuf xool ko maanaam dana dana wàccee bëtam bi xool ko parce que rafet rafet gu rafet nee na fas bi daal mënoo kaa xool si kaw te doo wàccee sa bët yi nga xool nga xool suuf ga wala mënoo kaa xool si suuf te yéegaloo sa bët bi si xool si kaw gi nga xool ko maam daal ku ko xool dana ko seetantal ndax baaxaayam moo mu ne warux naa dégg nga ñu daal di gontu waraaxa mu daal di gontu ak tirfu euh, dégg nga fas bay aji gaaw yan yan futu di fëgg rasuhu boppam ba mata ma taraqa saa su euh, xoolee al aynu bët bi fii si moom tasafala suufee na wala nga ne warux naa ñu daal di dem waraaxa mu daal di dem ak tirfu fas aji gaaw yan fudu yi fëgg rasuhu boppam ba dégg nga warux naa ñu daal di dem waraaxa mu daal di dem mën na firin tamit loolu dégg nga waaye ak tirfu mën na firi dégg nga mën na firi kinga nga xam ne dafa tedd ñaari waajur karimul abawayni yi xam ñaar waajuram moom dañoo tedd moom lay shaar bi di wax naan ana bnu tirfin tariful tariful jaddi wal laqabi ana bnu tirfin tarifil jadd tarifil majdi wal laqabi dégg nga dégg nga noonu la tariful majdi wal léegi mu ne ka anna dima alhaadiyaati dafa mel na deretu maanaam deretu ñu jiitu ñoo xam nga haadiyaati waxoon na la mooy maanaam alhaadiyaatu way jiitu ña maanaam ka anna ma dima alhaadiyaati dafa mel na deretu way jiitu ña bi naxari sa potox ga usaaratu xinnaa in naluti fuddan la bi shay bi bi si bay jaaw mu rajjali ba da bañ pañe nee fas bi bam dabee njaaxale yi ba fàdd leen nee na njaaxale yu jiitu noonu soo gisee seen fas bi bam leen fàddee soo gisee seen deret ji si kaw seen yaram bi dafa mel ni bopp buñ jël rek ba fuddan ko mu des euh, nga gis ne dafay jaxasoog lu xonq li ak lu weex li lu weex li nekk béjjaaw lu xonq li nekk fuddën nee na njaaxal yi tamit ba fas bi fàddee noonu la mel da ngay gis ne seen yaram bi yi ngi weex yii ngi xonq wante te yow ida stadbartahu soo ko soo ko dëddoo dégg nga sadda feg na farjahu yër-yëram bi daafin si geen foo weqal ardi si kaw suuse lay sa nekkut bi angeli di aji nee na fas bi nag soo ko wanee maanaam soo ñëwee si ginnaawam gi soo ko maanaam soo ko ñëwee sa wàllu ginnaawam gi da nga gis ne geen ga dafay fatt yër-yëru tànk ba maanaam diggante tànk yi geen ga da koy fatt te euh, nekku nag geen gi dafay dem ba suuf mais day dem bay waaji laal suuf rek dégg nga te geen gi nekku ne dafa jeng parce que ñoom gen gu dem si euh, fas gen gu su demee bay laal suuf loolu dañ koy dañ koy ayibal waaye gen gi tamit su jengee benn côté loolu tamit dañ koy ayibal maanaam génn gi dafa war a nekk sa nunk ba direct nga xam dafay wàcc direct si diggante tànk yi du jeng te du laal suuf ñoom fas boobu noonu mooy fas bu baax si ñoom moo tax mu ne ma ant yow ida stadbartahu soo ko soo ko ñëwee sa côté ginnaaw ga maa soo ko ginnaawoo sadda fekk na maa maanaam sadda fatt na farjahu yëyëram maanaam diggante tànk yi bi daafin si génn euh, fu wayqal ardi sa kaw suuf sa maanaam laalul su lay sa nekkul moom génn googu bi azali di aj jeng min a e yow xaaris xaaru mën nga wax xaaru mën nga wa xaari parce que la fa nekkoon mooy xaarisu xaarisu xam nga xaari tur la léegi mën ngaa dagg mën ngaa dagg siin gi def ko tarxiim léegi nag soo daggee siin ga lan moo fay sës raa raa gi dafa kasra woon nga ne xaari mën nga kaa bàyyi noonu nga ne xaari wala xaarisu soo daggee siin ga dàmm gu nekkoon sa eh, astafurlah soo daggoon saaga soo daggee saaga dàmm gu nekkoon sa saaga nga indi ko mu nekk xaaru mu ne a ah, xaaru xaaris eh, tara yaa ngi gis barqan melax uriika boo xam ne dinaa la wan wa miidahu melxateem ka lamcel yaday ne comme melxati ñaari loxo fii xabiyin si nit bay aji yoru mu kallali nit bay aji rankaloo nee ne e eh, xaaris yaa ngi gis yaa ngi gis melax bi nga xam ne mi ngi melxate comme loxo maanaam comme melxate ñaari loxo ñaari loxo yu liis ni ngi melxatee dégg nga yaa ngi gis niir bu mel nii niir bi nga xam ne mi ngi melxati kom euh, ñaari loxo yi melxati ànd ak niir bi nag niir niir baa ngi euh, bëri ba mel ni li yoru te niir baa ngi dajaloo niir boo xam ne yuduy u ma ngay leeral sanaahu leeralam aw masaabixu raahibin wala sax mi ngi mel ne lamp ak labbe maanaam lampi labbe lamp lamp lamp boo xam ne ahaana doyadal na asalita diw fi dubaali sa buum nga almufattali ba da bañ raw fii dafa bëgg wax xaaris na ko xaaris xaaris na ko ah mene ba may rëbbi niir baa ngi sëq di melxati ba menn ñaari loxo yi melxati waaye niir baa ngi dajaloo bay yoru waaye niir baa ngi rankaloo comme beeñ bu rankaloo xaaris na ko ah noonu la mel mi ne ko niir boo xam ne timit mi ngi leer bay bëgg a dee comme sax comme lampu labbe lamp labbe lampu labbe bi nu mu leeralee ba nga xam ne mooy gën a leer lamp pétrole nee na niir bi ni lampe làbbe boobu la mel salit mooy diw bi nga xam ne dañ la kaan def si lampe pétrole yi xam nga soo anéeree lu mat euh, ñaar fukki si ginnaaw ay mille neuf cent nangam da gis ne ñun euh, Sénégal suñu maam yi dañ daan utiliser lampe pétrole mooy bi nga xam ne dañ la kaan jël rek def ko si benn genre genre tëjukaay mi tàkk si biir waaye ñoom arab yi la kaan utiliser nee na lampe pétrole bi nga xam ne day am diw si biir diw ga ñu taqal si maanaam diw ga si biir lampe ba ñu def si mm, benn buum bu buum gu ñu ràbb buum buum gu ñu ràbb def si pétrole taal ko lampe boobu ni muy leeree lampe làbb bi moo gën a leer maanaam lampe làbb bi moo gën a leer lampe lampe boobu noonu te jamono ju may di rëb xiin ba maanaam euh, melax ba noonu la gënee leer lamp maanaam ni lamp lamp bi la mel mooy mu ne axaaru e yow xaaris tara yaa ngi gis barqan melxati maanaam barqan melax boo xam ne uriyeka dinaa la wan wa miidahu melxateem ka lamxil yadayni comme melxate ñaari loxo fi xabiyi mukal fi xabiyin euh, si niir bay aji yoru mukallali niir bay aji rànkaloo mu ne xaaris jamono bu may génne di rëbb bi jaww jaa ngi mel melax melax bi nga xam ne mi ngi melxati comme ni ñaari loxo di melxatee te fekk boobu noonu asamaan saa ngi am niir di waaja taw niir bi nga xam ne mi ngi bëri ba mel ni liy yoru si suuf dégg nga nga foofu lay mi ne déedéet niir boo xam ne yu doy ma ngay leeral sanaahu leeralam ga dégg nga aw masabixu rahibin wala mi ngi mel ne lamp labbe boo xam ne ahaana doyadal na asalita diw fi zubali si buum amu mu fattali ba da bañ raw wala sax nga ne niir ba melax ba mi ngi niroog làmp labbe bu leer boobu noonu lamp labbe boobu nga xam ne moo gën a leer euh, kii pétrole maanaam lampi pétrole lamp yooyu nga xam ne dañ la kan jël def ko si benn tëjukaay def si pétrole mu am benn buum ñu taal ko mi ne keroog boobu ba may génne di rëb bi fajar googu noonu la meloon mi ne toog na lahu ñeel ko wa suxbati te samay àndandoor bayna xaamirin ñi ngi si diggante xaamir dëkk la wa bayna ikaamin ak si diggante ikaam bucdama mutaamili yéem sorek aji seetantal nee na nekku ba may rëb bi ga si diggante maa si digg bu gàtt la waaye soo jëlee nee na nekk naa man man nekk naa si diggante xaamir te fekk xiin baa fa waaye samay anandoor yi ñii ñi ngi diggante xaamir ñii ñi ngi diggante ikaam te foofu yëpp xiin na kon xiin ba keroog dafa matale fépp mi ne kii seetantal dana xam ne kon lii nii xiin boobu noonu keroog yaatu na nee na xiin bu mel ni nag keroog génn naa fa di rëbbi xaatu toog naa was lahu ñel ko soxbati asamay anandoor bayna xaamirin ñu ngi si diggante xaamir wa bayna ikaamin ak si diggante ikaam bu'dama mutaamili yéem naa sorek aji seetantal man kero bu may génn diira bi ba ma toogee sa ko fas bi di génn samay àndoor ñii ngi xaamir ñii ngi ikaam man maa ngi sama barab te terewu na xiin bi dajale na foofu yëpp maanaam dajo na foofu yëpp hay lii sori ñoo bëgg a wax wa adxaa yoor yoorlu na yasuxu di sep almaa ndox an kulli fayqatin si bépp tekkeeral yakubbu ma ngay daane alal adqaani si si daaju sikkiñ ya dawxa ka nahbali euh, ndaa ñaame garabu ka nahbal ne na bu ma génnee di rabbi sa suba teel noonu yaa ngi gis euh, jawa jaa ngi toq ndox waaye ànd ak euh, fayqatin al fayqatu ñu ko gënoon a xamee si euh, ratt ratt soo rattee benn nga bàyyi tuuti nga rattaat nga bàyyi tuuti nga rattaat boobu la ñuy wax fayqatun parce que sooy ratt ratt yu bëri rek meew mi dafay jeex du maanaam du bëri boog waaye soo soo bësee benn nga xaar tuuti nga bësaat lu muy indiwaat mooy mooy gën a bëri nee na keroog ba ma génnee di rab bi yàlla ji nii la loon tawee maanaam dafay taw taw bu xiir dem ba su tuuti mu arrêté mu tawaat taw bu xiiraat dem ba si tuuti mu arrêté waat mu dawaat taw bi xiir dem ba si tuuti mu arrêté waat nee keroon noonu la loon yàlla ji di tawee waaye nekkoon ne dafay toq toq rek moo tax mu ne wa addahaa yor yoru na moom jawa ji ya sux di sëb almaa ndox an kulli an kulli fayqatin si bépp tekkeral maanaam si bépp taw bay aji tekkeral maanaam an kulli matarin fayqatin dégg nga yakubbu ma ngay daani ala adqaani si si si daaju si kiñ dawxa kanaxbali dégg nga ndañaam ak garabu kanaxbal kanaxbal benn xeetu garab la dafa ngand nag nee na keroot taw boobu noonu rëy na rëy goo xam ne bépp garab bu mag bu nekkoon foofu noonu taw bi daane na la wa tayma ak tayma dëkk la lam yatruk bàyyiwut bihaa tayma jiz'an naxlatin ëkk ak wala utuman du tataya illa mashidan lu mooy tata bañ dëgëral bi jëndali si dojab jëndal nee na keroot dëkk bi ñu wax Tayma taw ba bàyyi fa benn tàndarma lu mooy daane na ko waaye nag bàyyiwut benn tabax euh, lu mooy daane na ko lu mooy euh, tata bi nga xam ne dañ kaa tabaxee doj xam xam nga dafay dëgër nee keroot yooyu moo daane wut seen yooyu yooyu tata ñoo daane wut mais lu ñoom si tata yi daanu na mooy néegu simple yi dégg nga nee taw bu mel noonu nag keroog boobu noonu salaa génne di rëbbi lu ma bëgg wax daal moom moom jàmbar la façon bi tamit jàmbar la wa taymaa ah, lam yatruk bàyyiwut biha si taymaa moom taw bi gis a naxlatin ëkkal tàndarma eh, wala utumandu caagin tatay illa mashidan lu mooy tata bañ dëgëral bi jëndali si dojab jëndal dégg nga maanaam bi jëndali si doj ka anna dara rasil mujaymirin dafa menn njollaxtanu doju mu jaymir gudwatan si suba mina sayli e, ngita ngërëg yolle ngitag yolle wal xutaayi ak furit falkatu mixzali bopp këcci la nee nena taw bi rëy na rëy goo xam ne doju doju mu jay e, doju mu soo ko gisee keroot ndox mi dakaa muur ba mu des cat la nga xam ne soo ko gisee dafay mel na boppu merzal merzal mooy lu ñu daggee ay carton yooyu noonu benn affaire la lu ñu daggee soo ko noonu mel keroot nee na taw bi dafa taw a taw a taw ba ñëw si doj yi nga xam ne doj yi yëpp taw bi lekk na leen ba nga xam ne seen bopp yaa des bopp yooyu nag soo gisee comme merzal mooy këcceekaayu coton kon taw bi rëy na nga xam doj nu mu guddee noonu ak nu mu dëgëree taw bi ñëw ba muur ko ba mu des bopp ba nee na nag taw bu mel noonu si laa génn biirab bi moor mi ne ka anna daraara sil mujaymirin dafa mel ni njolaxtanu bopp doju mujaymir xud watan sa subaak taw ga mi na sayle ngir yolle wala xutaay ak furit ma falkatu mixzali bopp këccikaay la dégg ka anna abaanan dafa mel ni doju abaan fi afaaniini wadqihi si ay fànn tawam maanaam si ay xeetu sotteem fi afaanini wadqihi si ay xeeti sotteem kabiiru unaasin magaw aw nit la maanaam magu aw nit la fii fii bijaadin si mbàjji muzammali ba dabañ muur nee na keroot tawba nee na tawba xeetu ndox yu mu wàccee ak xeetu taw yu mu taw keroot keroot keroot bis boobu noonu hmm, dafa mel mag mi nga xam ne màgget mi nga xam ne dafa nekk si aw nitam rek màgget après gars yi jël mbàjj muure ko ko nee soo gisee mag moomu noonu nuñ ko muuree mbàjj googu noonu nu mel si kawam nee keroot taw ba noonu la mel mel si kaw suuf si ndax bëri waay nee na keroog moom ba muy génne di rëb bi taw bu mu taw nu mel si kaw suuf si fës nee comme mag mi nga xam ne rek dafa màgg nekk si biir aw mbokkam ñu daal di ko sàngee mbàjj mbàjj bi nu muy funkee noonu nee na keroot taw ba noonu la bëree si kaw suuf mu nekk ànd abaanan dafa mel ne maanaam asafulaa kon doj ba doju abaan noonu la mel si kaw taw ba moom mu na ànd abaanan dafa mel ne doju abaan fi fi afaani ni wa diqihi si ay fànn sotteem maanaam si ay xeetu sotteem kabiiru unaasin mago mago aw nit la fii bijaadin si mbàjji mu zammali bada bañ sàng ba bada bañ muur nee na keroot doju abaan ba taw bi tawee ba doju aban fee sa kaw ndox ma nee na doju aban mu ngi mel ni mag muñ jël rek sàngee ko am mbàjj ni mbàjj bi di fësee noonu nee na doju aban keroot noonu la mel si kaw taw ba maanaam dalaa bëgg wax ne ndox ma keroot bëri na ba nga xam ne doju aban soo gisee sax doo ko yaakaar mi dara danga ko yaakaar am mbàjj rek wa alqa mu di sànni bi saxraa gabitin si àllab rabit ba rabit benn barab la baahu ab ab diisam maanaam ab tawam nazulal yamaa yamaani comme wàcc commerçant yamaan yaman yamaan yi zil bi bay borom volis al muqawal yi bada bañ surgaal maanaam bada keroot keroot jaww ji taw na taw boo xam ne si àllab rabit rabit benn barab la nee soo demee sa àllab rabit ba jaww ji taw na fa taw boo xam ne wàccee na fa ndoxam mi ba sax léegi gàncax yi mujj nañ sax ba soo gisee da nga yaakaar ne benn benn commerçant bu jógee yamaan yi moo ñëw wàccee foofu noonu ay bagage xam nga suuf wàccee xam nga ñoom noonu dafa am ay commerçant yi nga xam ne dañoo amoon xaalis suñ demee nduggi ba ñëw rek luñ dugg day bëri nee na commerçant bi nga xam ne yamaan yi la jógee dëkk bi ñu wax dem commerçant dem uti bagage ba ñëw taaj bagage yi bagage yi ni ñu bëree noonu si si ay côté maanaam si côté après bagage yi ni ñuy bëree noonu nekk ay xeetu xeetu bagage nag wutee lool nee na keroog gàncax yi ba jaww ji tawee ba pare sa àllab rabit ba noonu la mel maanaam keroog àllab rabit ba jaww ji sànni na fa taw ba ga ba gàncax yi mujj sax ay xeetu xeetu gàncax nee na keroog gàncax yi noonu la mel comme commerçant bi nga xam ne yi la jógee taaj ay bagage am ni bagage yi di wutee noonu keroog àllab xabit ba noonu la wutee si ay gàncax min moo tax mu ne wa alqaa mu daal di sànni bi saxraa il xabiti si àllab xabit ba euh, ma wa baa ahu aw ab diisam maanaam ab tawam la si namm nazulal yamaani comme wàccak commerçant yamaani zil iyaabi kay borom ak valise yi al mu xawali kada kañu liggéeyal maanaam kada kañu surgaal yi nga xam ne dafa bëri ay surga al iyaab jamo aybatun mooy valise dégg nga ka anna sibaan dafa mel ni ndog menti fiiha eh, fiihi si taw ba xarqa way lab lañ xudayatun sa suba sa bi arjaihi si ay wàll si ay wàllam alquswa yay way sori ana biichu unsali comme renu eh, soble àll nee na keroot ba yàlla ji tawee ba pare si àll bi nee ndog ment yi dañoo lap si euh, dañoo lap si taw bi dee wet ba yàlla yu tawee ba si suba sa ndog ment yi dañoo lap si taw bi dee wet dee ba yëkkati seen tànk ya nee na nu ñu yëkkati seen tànk yi noonu comme yow mu dem rek fekk euh, soble àll soo ko buddee noonu ba ba daanee ko ba tourné ko nii ren yi di taxawi si kaw noonu keroog bàyyi may noonu lañ dee béykat seen tànk yi dégg nga euh, euh, dégg nga mooy usulu napti mooy renu renu renu kii renu gàncax moo tax mi ne ka anna sibaan dafa mel ni ndog menti fii sa taw ba xarqa way lab lañ gudayatu sa subaak taw ga bi arjaihi si wàllam alxusuwaa yee way sori ana bichu unsuli comme renu soble àll al unsul al basalul barri mooy soble àll soble àll soo ko jëlee buddi ko ba daane ko nii ren yi di ne copp si kaw noonu keroog bàyyi ma dañoo dee ba yëkkati seen tànk yi comme noonu nee na ala si dojuk neen ala qatnin si qatan benn doj la barab la benn doj la bi shay mi sa séntu ga ay munu saw bihi sa ndeyjoora sotti ga wa ay saruhu ak sa càmmooy sottiga ga ala sitaari si dojub sitaar fa yadbuli topp dojub yadbul nee na keroot sooy séntu taw bi taw bi mi ngi taw si côté yëpp côté ndeyjoor si côté katin côté càmmooy si côté sitar ak si côté yadbul xam nga ñoom seen barab ba doj bi ñu wax xatin mu ngi nekk si wàllum ndeyjoor nee na keroog taw bu sotti ne foofu waaye nga ñëw si càmmooy bi da nga fekk dojub sitar keroog taw bu sotti ne foofu nga ñëwaat tamit si doju yadbul taw bi sot ne foofu te nee na côté yadbul ak euh, nee na dojub yadbul ak sitar ak dojub xatan lu soree lañ te terewul yàlla gi taw na foofu yëpp kon taw bi kon métti na nee si taw boobu noonu si laa génne dem rëbbi ànd sama fas bi kon moom jàmbaar la fas bi jàmbaar mooy mu ne ala qatinin si dajob qatin bi chey sa séntu taw ba ay munu saw bihi nday joro sottigam maanaam nday joro sottiga wa ay saruhu ak sa càmmooy sotteem moom taw ba ala sitaari timit si kaw doju sitaar fa yesbulu fa yesbuli ak doju yesbul nee na keroog taw bi sotti na foofu yëpp sa dajob qatin wàllam ndeyjoor ak si dojab sitaar wàllam càmmooy ak si doyu na foofu yëpp waal xaamu daal di sànni sànni bi busiyaan ma al layli ànd guddi gi barkahu dënnam fa anzala mu daal di wàcc minu si moom al usma si fa anzala di wàccee minu si moom al usma sikkatu doj ya min kulli manzili si bépp wàccuwaay nee na keroog taw ba dégg nga ba mu tawee si dojub busiyaan dégg nga bépp sikkatu doj bu nekkoon si kaw wàccee na la xam nga sikkatu doj moom si doj bi rek ma sikkatu doj benn rab la ñu koy wax sikkatu doj parce que si doj yi lay dëkk dafa naqadee wàcce doj ne keroog sikkatu doj ni muy naqadee wàccee noonu keroog jaww taw na ba wàccee leen si kaw doj ma dégg nga mm-hmm. mm, busiyaan jabalun fi diyaari bani saad benn doj la bu nekk si banu saad albaraku yaani assadr albaraku mooy dënn waaye nag waxuñ la dënn bu ñuy wax arraad bu nekkee dënn bii jógee si taw la boobu la ñuy wax arraad dégg nga waaye albarku gi na moom dënn bii suñ ko waxee mooy maanaam comme ça dënn doomi aadama asadru boobu lañ si nam asadru dënn doomi aadama wala dënn bàyyi ma yooyu noonu yooyu lañ si na moom waaye nag xam nga taw amul dënn dënnu dënnu doomu aadama mais daka abal rek xam nga nit sooy wàcc si kawam sa dënn bi ngay jiital léegi nag dafa jël dënn googu noonu a ah, jox ko taw maanaam abal ko taw nee na taw baa ngi wàcc si kaw busiyaan jiital dënn ba comme ni doomu aadama di wàcc sa kaw jiital dënn ba keroog taw ba muy wàcc si kaw busiyaan noonu la jiitalee dënn ba di wàcc maanaam noonu la jiitalee ndoxam ma di wàcc boobu wàcc si kaw doju busiyaan nag ba fees fa dell ba wàcc si katu dojee sa kaw doj maanaam eh, eh, eh, jugee sa kaw doj moom ne wa alqaamu dal di sànni taw ba sànni na ndoxam ma bi bus yaanin wala nga ne wa alqaamu daal di sànni bi bus yaanin sa doju bus yaan ma àllay li ànd guddi ga barkahu dënnam ba xam nga taw amul dënn mais nit si wàcc si mbir dënn ba lay jiital nit si toog sa kaw di wàcc sa kaw dënd ba lay jiital moo tax mu jël dënd ba abal ko taw ba mais lu mu namu si dënd maanaam ndox ma rek wàccee ma sa kaw doju bu siyaan mu daal di fa anzal mu daal di wàccee minhu sa kaw doj ba al usma sikkatu doj ya min kulli manzalin te ko si bépp wàccu waay keroog sikkatu doj yu nekkoon si kaw doj bi yëpp taw bi wàccee na leen lu mu loon in uridu illa islaaha ma stataatu wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa la euh, qasida muallaqa bu ñuy wax euh, muallaqatu imrul qaysi di qifa nabki min dikra xabibi wa manzili bi siqti liwa bayna daxuli fa xawmali fa tuudixa falmiqraati lam yacfu rasmuha lima nasajadha min janubin wa shamali tara bacra al arami fi arasatiha wa qiicaaniha ka annahu xabbu fulfuli qasida boobu noonu jeex na beneen yoon ñu fexe dugaa si beneen qasida wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh